salon national des arts visuels xam ngeen ne tàmbali na dina jeex itam fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août bi ñu nekk laata nag ñuy àgg ca cëppaandaw ga ñu def taxaw seetlu ci fukkeel euh, fukkeel ak euh, fukki euh, fukki ak benn muy am muy onzième édition muy jamono joo xam ne nag waxtaan la diggante artistes yi naka lañuy def ba defi feem waaye itam ci solos arts visuels anam mooy lan lan mooy njëriñam duñ ci sori tontu yooyu daañ ci ànd léegi ak Ibou Diouf ak Lamine Diagne ñu ñëw soobu ci biir galerie nationale des arts fii lañu ñu amale xew-xew bu mag bi di salon national des arts visuels atum ren ci yemook fukkeelu yoon beeg benn lu toll ci ñeent fukki artiste ak juróom bokk ci ñuy jongante loolu rekk ñu duppee que atum ren ji benn bopp art et cohésion sociale waa salon national des arts visuels boo gisee ñu taxawal ko euh, dañoo bëgg bërëb boo xamante ne artistes yi dañ fa mën a wane seen bopp bopp wane fa seen xarañ xarañteef ah, wane aussi euh, art Sénégal euh, art ci Sénégal fu mu toll. loolu mooy mbébétu salon national des arts visuels ñu ngi ko créé depuis 1973 ren ñoo ngi ci fukki fukki fukkeelu édition ak benn. en fait lépp nit ki yaakaar na ni ci lépp lu muy yëngu. bëgg na ndajeem donc à part biennale bi salon national des arts moom mooy sunu ndaje bu gën a mag fii ci Sénégal ci wàllu art euh, dinañ permet tamit ñu dajewaat tamit ñu wane lu ñu jot a liggéey si diggante bi et ak daje bi rek solo bi yaakaar naa loolu euh, salon bi loolu am njariñ la ci képp ku nekk artiste ci ci Sénégal te tamit yaakaar naa ku nekk war ci bokk te bëgg nga ci bokk. salon bi nag bokk ci liy may artistes yi la ñu fësal seeni fent gannaaw seeni liggéey ñu gis ne lii lu am solo la ndax mën na leen may ñu gën a jege askan bi en tant que artiste salon bi boo xoolee dañ koy def ci diggante biennale Dakar ci donc salon bi dafay wone actuellement. au Sénégal artistes yi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllum art visuel fan lañ toll seen liggéey artistes yooyu ñu propose seen liggéey am jury bu ko tànn mu won ko peuple sénégalais bi mais aussi dafay permettre au niveau des arts visuels ñu xam fan la ñuy positionné fan lañ jëm ak fan lañ toll je pense que loolu am na solo. am na njëriñ ndax dina tax ñu gis la dina tax tamit ñeneen nga am si yeneen xamee mooy contact gi nga si am ak yooyu te tamit. bon raaya réew mi la te raaya réew mi tamit nga am si nga am ci prix day dafa am lu muy def si sa carrière quoi. waaw dessin bëri na ñu koy def mais bon li ma constaté nag euh, euh, ci salon bi nii ci côté bi surtout euh, dessin rare na ci ñu koy def quoi parce que ñëpp ci je vois que ni ci art contemporain bi ci lañ gën a concentré wu quoi. bon en tant que ñun en tant que jeune artiste. Euh, salon bi dina ñu permettre ñu mën a fësal li ñu li ñu li ñu li ñu li ñu euh, dina ñu permettre aussi ñu mën waa ñu mën a wone suñu bopp euh, monde art bi aussi gën ñu découvrir ñu quoi. muy ab plateforme boo xamante ne ay artistes yu bëri te wuute ñoo fi tase ku ci nekk ak fa nga gën a li nga xam. ci lépp lu mën a jëmale aar yëkkati tamit raaya Sénégal. waaw œuvre bi mu ngi tudd le jardin des vertus euh, maanaam jardin boo xam ne jardin wu jikko yi la mais œuvre bi euh, dafa am benn xadis bu ma dégg ci xadis yonent bi sallallahu bu mu xam ne dafa toogoon ak euh, saxaaba yi tedd yi mu ne leen am na 360 jikko yoo xam ne ku ci am benn di nga dem àjjana ba mu waxee loolu Seydina Abu Bakr Sadiq dafa jooy. ne ko ba xam am naa ci benn yonent bi ne ko am nga lépp euh, xarit boobu daf ma marqué ba nga xam ne euh, tey jii nii jukko yooyu laa bëggoon firndeel lu tax ndax doomu aadama bu dul jukko rek du nite. waaw déjà retour bu ma ci njëkk am bu ma bu ma ci gën a marqué fii la soxna si dafa taxaw fii mu ne en fait bu xoolee œuvre bi yaramam dafay daw le temps que muy wax loolu fekk mu jooy xaw ma lu ko jooyloo donc loolu retour bu. immense la ci man quoi parce que xaaruma ko ci woon quoi sincèrement. Euh, lépp loo xamante ni nekkul rek mais lépp loo gis loo xamante ne lu koy jëmal mooy daje booloo liggéey. Euh, salon bi bu ñu suñu suñu bébét sax mooy mu bañ a yem dong Dakar ndax on parle de la galerie nationale d'art galerie daf fee nekk pour dëkk yëpp région yëpp ci lañ bokk bu ñu sañoon tey exposition bi ñu def même bu fekkee ñëpp mënuñoo dem ñi nga xamante ne ñoo ci gën a fës ñu dem euh, defal leen tournée au niveau des régions salon bi nag niñ koy amalee saa su nekk bokk na ci li nga xamante ne am na solo ci agenda culturel bu ministère de la culture dina may artistes yi tamit ku ci nekk nga xool sa taxawaay natt sa bopp xam li nga xamante ne moom nga def ak li nga yóotu merci beaucoup euh, Ibou Diouf ci gëstu bu am solo boobu mu. danse de l'autre côté du reggae. ah oui euh, à toi aussi. elle adore. neex na Ibou la man affaire yi day yëngatu. Hmm? c'était c'était magnifique mooy CD Ranks. ci art visuel ak euh, salon national boobu ñuy amal quand même. waaw mu bokk li suqali art di ko dundal. Fatou il faut ngeen dem seeti. Euh, dem galerie. wala il faut ñu donc euh, Blaise Senghor bu ko defee mm. ngeen jàppale artistes yi. parce que euh, mu ngi wéy ba le 17 août bi ci lay jeex. muy événement boo xamante ne gannaaw ni ñu koy defee saa su nekk lu lu am solo la. ndax bu weesoo biennale bi bokk na ci xew-xew yu gën a am solo ci agenda culturel bu ministère de la culture. donc mm. dina may. artistes yëngu rawatina ci wàllu euh, art visuel. Mm-hmm. Euh, mooy art plastique mooy art euh, mooy li nga xamante ne dessin mooy sculpture ak li ni mel. Mm-hmm. mën a fësal li nga xamante ne moom la ñu liggéey. Mm-hmm. donc dina leen may ni ko waxee aussi ñu am contact tase ak yeneen partenaires comme ay collectionneurs bu ko defee tamit. ñu xool li nga xamante ne moom la ñuy def mën ci jàpp ñu mën ci gis seen bopp lu am solo la te yaakaar naa lu ñu war a mën a. gën a jëmal la bu ko defee tamit population bi. Mm. Euh, gën di ñaax seen doom yi ñuy dem galerie. di mm. xool li nga xam ne artistes koy def ndax lu lu am solo la. Mm-hmm. donc euh, boo fa doxantoo daal li nga fa fekkee ay voilà gis nga ni koy wane ci image yi. Mm-hmm. ay vraiment ay œuvre yu am solo euh, te tamit kilifa yi ñu ngi ci def seen jéego parce que boo xoolee. Mm-hmm. ñi nga xamante ne ñooy lauréat yi donc ku ci nekk dina am ci wàllu koppar loo xam ne dinañ. ko teg sa loxo. donc bu weesoo yeneen opportunité yi nga mën a am jaay sa œuvre donc je pense que yi lu lu am solo la. Mm-hmm. voilà balaa ma lay delloo rek. ñu ci profité aussi di shout out suñu gars yi nekk euh, King fële. Kinshasa mhm. donc euh, waa PAO CREO Sénégal. très bien ñoo fa daje. donc voilà mhm. culture aussi dañuy wax wàllu euh, sportif yi mais. acteur culturel. Mhm. ñu ngi. 7h40 waaw Ibo. ñu ngi ciy def seen waar. ndax ñoom ñoo jël meilleure chorégraphie. deuxième battle aussi. merci prix francophonie. merci merci beaucoup jërëjëf daañu caada ñaareelu pàcc bi ak sunu invité naka noonu Souleymane dina fi teew ñu dem gaaw RFM Babacar di dalal Pape Sène président commité sénégalais des droits de l'homme à tout à am man si waaka loolu daf koy